askanu Sénégal gii te xamal ni bu yóboo ñu waajal troisième dose nag ndax li doonga mën a mën a muccal ci variant bii di Omicron parce que ni muy waaxoo ci réew mi di gën màgg kaa di gën di bëri fi mu ëpp nañu doole Sud Quotidien moom di laajte est-ce que fàttaliku procureur Aliou mi nga xamante ni moom la ñu dénkoon CREI yi te Macky mu jékk woon dàq en plein audience yëlekaay bi ñoo xam ni saa su nekk ñu gis ko ci nguur gi ay Aliou di xam ci biir yéenekaay bi ne ci boppam jamono ji moo amul njariñ ab instrument dong lañ ko jàppee ngir mën a faj seeni soxla xoola ci nguurug Macky Sall gi bi nga ab nii bu njëkkoon da daan am infirmerie scolaire te jamono ji dafa raar lool yéenekaay bi ne xoolal ci jamonoy Abdou Diouf ba ci Abdoulaye Wade école boo ci dem da daan am infirmerie ngir élèves ak enseignants yi ku ci mën am tolof tolofu wér-gu-yaram nga daal di dem gisee ak infirmerie bii yi ci biir yéenekaay bi di naqarlu lool li tax jamono ji infirmerie amatul ci école yi tey tuuma lépp nag ñu jëm ak liste opposition bi nga xamante ni ci bëri dañ leen bi ne lim bi mu ngi tolloon ci ñaar fukk ak ñaari liste yoo xamante ni dañ ko rejeté waaye ni démb lañu àtte lépp bu dee yeewee askan bi moom mujjee nañ leen a validé Les Échos yéene kay ne dëgg tey dëgg kay mooy préfet yi am nañu ndam ci waa Yewwi Askan bi ndax booy xool bu dee ne fukki dossier teg nañ ko ci table bi huit yi fi mu nii préfet yi gagné nañ ko mujjee rejeté Yewwi Askan bi jommi jomme tey xam le ne ba léegi ci xeex politique la nekk faaw ñu jël ci suñu position bu leer ngir mën a am ndam ci combat bii critique yéene kay ne Cour kay joxe na résultat ci coow li nekkul ci liste nañoo am ndam naka noonu ca Ziguinchor yéenekaay bi dañu xamante ne gis nga juge ni moo sàccoon li si ki am ndam dëgg kay mu di Antoine Diome mi nga xamante ni moo jàkkaarloo nag waa yeewu askan bi booy xool ci ñaar fukki dossier ñaar ñaar fukki gagné na ko jamono ji yéenekaay bi dellusiwaat ci xeex bu metti bi nekkoon ci diggante ministre de l'intérieur ak waa yeewu askan bi ci seen liste de recours yi nga xamante ni mu ngi woon ci cour suprême maanaam fi mu toll nii Antoine Diome gagné na leen ba toog seen kaw ndax ñaar fukki liste ak ñaar yi nga xamante ni rejeté woon nañ leen ñaari liste dong la ci waa Yewwi bi gagné li ci des lépp nag ba jamono ji validé guñ ko bu dee Bougane Gueye Dany moom bu yóbbu mu dem tëddi nelaw ndax du bokk ci xëccoo bii nekk ci mairie bu Dakar L'Info yéenekaay moom ubbi xët bu yaatu jagle ko Ousmane Sonko mi nga xamante ni niki démb mu démb amul mu di mobilisation na Sonko seen patron ñemewut a jàkkaarloog man ndax woowoon naa ko ca ngir ñu def débat d'idées Sénégal gi yépp di ñu déglu waaye Macky dafa dawoon de yéen bi ñoo xamante ne Ousmane Sonko nag fi mu nii la mu xamal waa Benno Bokk Yaakaar yi moo di mënoo leen a mucc ñu def débat d'idées askanu Ziguinchor bii mën ñoo déglu ngir ñu xam njariñu Ziguinchor ci loxo ñan la nekk Ousmane Sonko ci biir yéenekaay bi ne gis nga ngoonuk janvier muy neex muy naqari Ndakaaru moom ak Ziguinchor waaye yow askan bi dañ ci dégg wiiw ndax danañ gagné élection locale yi ci lu leer Ousmane Sonko ci biir yéenekaay bi def révélation bu rëy ci alal gu takk gi nga xamante ni waa benn bokk yaakaar moom lañ nar a campagne

Diaz fils moom gañe na ko te xool sax moom ci boppam moo ko xeexal boppam ndax toujours mu ngi ci terrain moom ubbi xët bu yaatu jagleel ko discours nation bi nga xamante ne di Macky Sall il na ci coppite te war koo def ni ki décembre bii yéenekaay bi def ci ay révélation yu rëy ne Macky nee na du jàkkaarloog presse bi pour face ak presse bii loolu du am ci ren jii yéenekaay bi desuwaat ci xaar gi nga xamante ni sénégalais yi ñu koy xaar discours Macky Sall après élection yi ngir mën a wax ci poste premier ministre bii xalaatam ci troisième mandat bii muy xëccu <laughs> kon nag ñu yendoog jàmm ba suba ak jàmm incha allah. ñi bëggoon a xam ana fan la ñuy jaayee produit yu kenn bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy ñuy yellu di leen wax adresse baa ngi noonu bu ngeen ñëwee fii ci résidence am bu bees bi nekk ci poste Thiaroye ci arrêt table Tivaouane suñu ay numéro 77 502 15 63

77 030 48 40 bu ngeen wootee ci yili numéro di ngeen jot ndaw yi kenn bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha si wan leen ana nan ngeen di def ba mën a agsi ci bile bërëb bés yi nga xamante ni moom la kenn bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha si di consulter talaata àllarba alxames gaawu dibéer bi nekk bésu sàkk pexe bu delloo ci rendez-vous privé yi kii di kenn bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha yi daal dina leen ni sàkkal ñaari bés muy altini ak àllarba bu ñetti waxtu jotee jàpp juróomi waxtu kenn bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy gaaw ci tawat yi gaaw ci poche yi